Anyways.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 yii nii yëpp dañoo amoon ci moom yaakaar ndax jaar gi mu jaaroon ci yoonu nekk ab saltige guérisseur bu mag a mag a biit amoon ci moom yaakaar Pépé Diop moomu faat boppam nag nee ñu at yi mu ngi tolloon ci ñeent fukk moom daal ajuma ji weesu la doon def ab démonstration mystique ci biir démonstration mystique boobu la jamee boppam paaka paaka bi sar ci biir mu jaare fa ñàkk bakkanam na lillahi wa inna ilayhi rajiun mbir mi nag nee ñu ci ab mariage la xewee ci village bi ñu naan Fayako ci xolu ilu siin ba nee bi daal bi mu egsee ci bi géwél dañu koo dar di ko bàkk naka deret di yëngu comme ko doon defee saltige bi dal di jaayu dal di génne paaka bi mu yoroon doon def ab démonstration mystique jam ko boppam paaka bi sarci ci biir si la deret di sangu ko oh. bi ñu koy yóbbu hôpitalu Fatick ci la ñàkkee bakkanam ña fekke yëf yi nag moom nee ñu saltige bi dañu ko laal ñoom daal nee nañu dal saltige bi ab main invisible jogu ci maanaam dañ ko atteindre mystiquement cay mim réew li tax ñu wax lu ni mel nag mooy nee ñu saltige bi saa su ne bu doon def démonstration mystique paaka boppam la ko doon defee <laughs> ma ne ca paaka bala yàgg na ko def di bojji boppam ay paaka dara du dugg waaye nag bi yoon saltige bi dafa fàtte am këram naka noonu ci la jëndee paaka ci yoon bi bi muy def démonstration mystique bi ko faat nag paaka boobu mu jënd la bojjee bokkam mu daal di sar fala la jaaree ñàkk bakkanam moo tax ñu ne daal esprit maléfique yi ñoo ko dugg dal di koy songu ba mujj koo faat ndeysaan gannaaw bi ñu defee autopsie bi nag ca l'hôpital bu Fatick mujj nañ ko denc dimanche bi weesu weesu ca armeelu njaay-njaay ya nekk ca capital bu siin ma ne yàlla de fu ne lay dikkee moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax aawo bii nag li mu def ëpp na ndax aawo dafa jël ndox mu tàng dal di koy xëpp wu jëm bi di ñaareel ba mu teeri urgence ma ne lii moo tax man ci benn jabar rek mbir moomu nag mu ngi xewee ca village bu ñu naan Mbaya Awa nekk ca arrondissement bu Yang ca département bu Linguère aaw bii di wéy turu dem Mbeng moo fa doon jàppante jàppante bu metti ak ñaareel bi di wuyoo ci turu bekkan dal di koy xëpp ndox mu tàng ci kanam gi ak ci digg ginnaaw gi ba mu mujjee teeri urgence aaw bi def lu ni mel nag bi mu defee yëf yi ba noppi dafa daw ne may kenn gisu ko aaw bi def lu ni mel nag ab xale mu ngi am ñaar fukki at ak juróom-ñeent ñaareel bi ñu xëpp ndox mu tàng mi nag mu ngi am ñaar fukki ak juróom-benn ne ñu ñoom ñaar lu ni mel yàgg na ci seen diggante ndax noonu la ñu dëkkee woon xuloo guddi xuloo bëccëg ba ci seen kanamu borom kër sax fii raange da doon tax ñu jàppante ci kanamam di xuloo bay waaj a xeex moo tax musiba bi dal ci seen kaw nee ñu bettul kenn aaw bi def lu ni mel nag fi mu ne yoonang koy wër moo tax ma ne man du ma takk ñaari jabar de benn rek benn jabar rek ndax léegi jigéen ñi seen fiiraange yegg na foo xam ne waxuma ñu xëppante ndox mu tàng waaye yow sax mën nañ laa xëpp ndox mu tàng rey la benn rek ba beneen yoon mu doonoon seen xibaaru buzz di dada beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz